auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sant suñu ñaari waajur san suñu wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziyaare jiite ci nuyoo bi nag suñ kilifa sëriñ Mountakha Bachir yàlla na fi yàlla yàggal lool te wéral cëram ci noonu ka ca lañ ko nuyoo suñ kilifa suñ Seex Jëmb Fall yàlla na fi yàggal lool te wéral cëram tey jii nag ñu ngi ci Daaru Xudoos ci jotaayu yi nga xam ne Waarwi TV saa su ne dafa jóge yéen ci weeru koor yëpp di ko ànd ak yéen biir kër yi nga xam ne njabootu maam Cheikh Ibra Fall maa nga fa fii nag ñu ngi ci kër sëñ Modou Mbenda ci ndigalu xalifaam sëñ Amdi Modou Mbenda ñuy jaajëfal nag yéen ñi nga xam ne saa su ne dañuy jot commentaire lool saa su ne da ngeen ñuy di ñu gërëm ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal maam Cheikh Rafal li ñu war mooy liggéey Cheikh Ibrahima ndaxte ñun ñëpp ay dong lañ Waarwi TV nag itam mooy a pas-pasam mooy lépp fépp foo xam ne njabootu Serigne Touba nekk na fa njabootu maam Cheikh Rafal nekk na fa Waarwi TV dana fa dugg di fa won leen liggéey bi te ji nag fii ci daar Daaru Xuddoos mu nekk fu mar a mën a ne tey ji nag ñaar fu fan ak ñaar ci weeru koor ku dëkk fii ci Darou Khoudoss kër sëñ Modou Mbène ci njabootam nga gis pas-pas bi ak yéen a jin àndee ak bëgg sëriñ Tuubaa gee àndee ak wéyee ndigal la seen maam maam Cheikh Rafal gi ñu nekkee la donga yi di waaji la ndongo yi naka la pas-pas yi yëpp ak naka la yéenee ndax li ma naan sëriñ Tuubaa Cheikh Bamba yéene la ñëpp dem ci ñoom pas-pas ndax maam Cheikh Rafal kat moo doonoon lamp bi nga xam ne moo ko doon niit ban mën koo gis tey kon di ne 2020 am na loo ci rawoon 2021 tey bi nga dikkee gis nga namante gi nga xam ne moom la yoonu murid namante woon passeport bi nga xam ne moom la yoonu murid amante woon ndax ñu yoonu murid lii leen xam waxa baax di naan ci kafe gi di sikkar Cheikh Ibra moom la yoonu murid am tey jii nag ah, daara Xudoos di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax mboolem njabootu sëñ Modou Moustapha gépp nag di jaajëfal suñu xarit suñu sëriñ suñu lépp sëñ Moustapha Ndiagne ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di képp koo xam ne rek yaa ngi nekk ah, Daaru Xudoos di sant di gërëm suñu waajur bu baax suñu xarit sëñ Mbacke Mara moom ñu ngi koy jaajëfal bu baax ndax moom i ñu ngi gis commentaire ak ñaan gi nga xam ne mi ñu koy yóbbante diñu ko ñaan kon mun taxawee fii ëttub daara Xudoos war a jaajëfal njaboot sëñ Modou Moustapha gi nga xam ne danoo sopp soxna jaara di ànd ak ñun ci liggéey liggéey bi saa su ne di ñu ñaanal di gërëm bu baax a baax a baax fi ñu demoon démb di jaajëfal waa ka njaboot sëñ Mortala Fall gis ngeen liggéey ba nam demee macha allah mucc ayib ga mucc ayib ak yéene ji nga xam ne moom lañ ko àndee ak ñun kon di wax yal nu yàlla fay Cheikh Fall di ñaanal njaboot cheikh bi gi fi nekk yàlla di yàlla teg loxo di ñaanal bàyyi sin cheikh jëmb yàlla guddal fanam lool te wéri jërëm ci doole cheikh Ibra ni ñu koy defee ci jotaayu koor ci ndogu yi njabootu cheikh rafal te ñu dikkaat ci beneen kër ci geneen njabootu cheikh rafal muy sëñ Modou Mbenda moom cheikh rafal ñëw fii nag ci ci këram fekk fii njabootam ak bopp njaboot gi sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenda ñëw fii nag ci kër gi fekk fi doomam sëñ Ndam Fall moom it bokk ci njaboot gi ñu fas yéene yi lay ndogu yi ak ñoom naka lañ koy waajal ak naka lañ koy defee ndax li ma naan saa su ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Cheikh Rafal moo nekkoon làmp bi nga xam ne moo koy niita niitu Cheikh Rab googu nag moo law ba nëga si fi mu toll nii ci jamono fi mu toll dikk gis ni ko ci sëti Cheikh Rafal yi di defee ndog yi ak cër biñ ko jox ak maggaay biñ ko jox danga xam ne Serigne Bamba rek moo fi ne ndax yoonu murid rek nga gis lii liggéey joxe togg joxe fépp fu waay man di nekk ci àdduna bu weeru koor jotee xel yëpp dañuy màcc ci Touba rawatina nag njabootu maam goo xam day ànd ak yéene ak pas-pas ak ak ak ak pas-pas parce que murit dañ ne pas-pas la ak ndigal ñu ñaanal baax suñ kilifa sëriñ Mountakha Bachir yal na yàlla guddal fanam lool lool lool te wéri li cëram di ñaanal bu baax a baax suñ kilifa Baye Cheikh jëmb yàlla fi yàlla yàggal lool faal te wéri cër ak mborom njabootu maam Cheikh Rafal gi nga xam ne moom la bokkal Cheikh Ibra kon nag ñu jox sëñ Ndam waxtaan ak moom fii ci kër sëñ Modou mbenn fii ci Daar Xuddus ñoom ku ne xam nañ wax dëgg yàlla ak seen seen seen taxawaay ci yoonu Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne ci leen bokk ndax ni dana bokk ci kër sax te du doxee na mu war a doxe waaye li ma naan Baay Faal yi soo dee toog ci seen jotaay dañ lay yaraat të tëggaat la tegaat la ci kilifteef ak nangu ki leen yilif moo waral tey ji ni ñëw fii nag sama sëriñ ñu nuyu la ziar la waaw jëf soxna si ñu ngi leen di fay ah, di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ah, ah, di tàmbale suñu kàddu rek te di nuyu ak bokki taalibe yëpp ak jullit yëpp di leen ndokkeel ci weeru màgg wi ñu ne ak liggéey bu màgg bi nga xam ne ci ngeen nu fekk muy liggéeyu ndogu yi ah, ñuy nuyu sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou mbend di ko siyaare bu baax a baax moom njabootuk sëriñ Modou Fall Mbenda gépp naka noonu ñuy siyaare njabootuk Cheikh Rafal gépp rek ndax ah, liggéey bi eh, mboolem buntu kër Cheikh Rafal boo taxaw tey ji rek ña nga fa nekk di ko di ko di ko taxawu euh, liggéey bi nag mooy ndogu yi ndogu yi koor gi euh, cosaan li kenn ku ne xam na ko liggéey ndigal la loo xam ne dafa bàyyi ko woon ci sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wàcc si maam Cheikh Ibrahima Fall waaw ne nu koy nettalee wax nañ ni dafa am bis euh, ku tedd ki woolu maam Cheikh Ibrahima Fall mu ñëw bi muy ñëw it mi ngi ànd ak ku ñuy wax sëriñ Yaaram Mbay di taalibeem boo xam ne bii da daa faral di ànd ak moom ndax moom wax nañ ni bu masaa jàkkaarloog sëriñ bi yenn saa day nopp yi day dootu dégg euh, bët yi dootu gis su ko defee day ànd ak sëñ yaaram ngir sëñ yaaram mën a teewlu kàddu yi sëriñ bi ndax bu nu génneen mën ko koo nettali bi mu ñëwee sëriñ bi ne ko daal dafa am gan gu tedd gu may séentu te bëgg nga teerul ma ko te teralal ma ko euh, wax nañ ni bi nu génnee ba dox ay jéego mu taxaw ne yaaram mbay ana lu ko tedd ki wax sëñ yaaram nettali ko kàddu yi mu laaj ko ba mu ñetti yoon mu ne ko kon dey sëñ Tuubaa ay ndogu la ñuy toggaloo kon nañ ko waajal te eh, dajale taalibe yëpp kenn ku ne na jekk weeru koor yi ba mu teroo rek nii nu ko baaxoo defee nii ngeen gis nu di ko defee rek eh, mbooloom ñëpp daje si kanamu sëriñ bi eh, ñu ñu ñu bu nu xëyee ñu yendu fi dajal indi xéewal yi saytu ko defar ko ba ngoon ñu taal ko togg ay ñam yu sell bu tàkkusaanee ñu yenn ko di tudd yàlla fa kër sëriñ ba ñu yóbbu ko fa wàññeeku delluwaat ba liggéey ñu xëy fàgguwaat loo xamante ne si moo jëm sa liggéey boobee yàlla def na Cheikh Rafal di taxawu liggéey boobu eh, diirub li ko ko sëñ Tuubaa sant mu nekk fi ba 1927 eh, bi sëñ ku tedd ki làqoo si sunuy bët Cheikh Rafal liggéey boobu ci Cheikh Amadou Moussa ñetti at yi nga xam ne nekk na fi ak moom ndax moom 1930 la fi jógee moom Cheikh la làqu sunuy bët Euh, bi nga xamante ni bii làqu naat ab taawam di Serigne Modou Moussa moom it euh, tàmbali liggéey bi di ko di ko taxawu muy ndigal yëpp ak koor gi nga xam ne rek moo waral waxtaan wi muy liggéey ndogu yi ànd ko nag ak njabootu Cheikh Rafal gépp muy doomi Cheikh Rafal yi fi newoon yëpp di ay rakkam ak magi bi yi fi newoon yëpp ñu ànd di liggéey liggéey bi di ko yor Cheikh Modou Moussa mbakke bi nga xam ne moo doon moo wuutu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul liggéey boobu sëñ Modou Moussa taxawu na ko ba 1945 sëñ Modou Moussa Mbacke làq suñuy bët sëriñ Fallou toog jotaayub sëñ Touba Xaadimu Rasuul mu wéyal ko ba 1950 1950 si la fi sëriñ mu saa Fall jóge muy taawu Cheikh Fall jëkk ko wuutu bi mu làqoo suñuy bëtit it euh, mu am ñaari ndono bu njëkk bi mooy ki koy donn si xalifab Cheikh Rafal gi muy sëriñ Mor Talla doon ki magoon si doomi Cheikh Rafal yi waaye <clears throat> Serigne Cheikh Fall Baye Góor nga xam ne moo doon ab taawam it donn ko nag moom si xalifa xilaaf ak boppam euh, nga xam ne bi loolu amee sëñ Mortala Fall ànd ak njabootu Cheikh gi ñuy taxawu liggéey bi di ko liggéey euh, si diggante 1950 ba 1954 sëñ Mortala Fall moo nekk jotaayu maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla dogal mu ànd ak njabootu Cheikh Fall gépp ñu di ko ñu di ko taxaw Euh, diggante boobu nag sëriñ Modou mbenn am na fi ndigalul euh, dem mottali ab liggéeyam ci sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké muy sëñ Cheikh Gaynde Fatma li waral li waral sunu nekk ci Daaru Xuddoos euh, muy muy ñaari mbir yoo xam ne yu yéeme la ndax bi sëñ Modou Mbend di di di di di di ñëw si sëriñ Cheikh Gaynde Fatma di fi taxaw ab liggéeyam booba dafa fekkoon sëñ Cheikh Fall Baye góor moom mu nga xam ne moo doon taawub sëñ Modou Moussa Fall Mm, sëñ Moon Moussa Fall da koo boole woon ak ak ak ak ak taawub sëñ Moodu Mbenda hmm. muy sama waajur di ko ñu wax sëñ Cheikh Moodu Mbenda ak ak ak ak ñeneen ñoo xam ne taawi Cheikh Rafal sët yi nga xam ne ñoo fi magoon ñëpp sëñ Moon Moussa Fall da leen a boole woon jox leen sëñ Cheikh Fall Baye góor nga xam ne ñoo bokk fu nu jànge ñoo bokk fu nu muritoo jox leen sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi sëñ Cheikh Gaynde Fatma kon bi sëñ Moodu Mbenda di ñëw di liggéeyal si sëñ Cheikh Gaynde Fatma kon dañuy wax ni fekk na fi ay doomam ndax fekk na fi ab taawam di Cheikh Modou Mbenda si gannaaw magam di sëñ Cheikh Fall Góor di doon taawub Cheikh euh, doon doon taawub Cheikh Modou Moussa Fall yàlla dogal booba Cheikh Fall dëkk bii mu ko sanc muy njakkar ma jëy foofee la daa togge ay cere defar ay cere jamono booba nga xam ne bu ko defaree ba mel na mu war a ñu indi jox ko sëñ Cheikh Gaynde Fatma loolu diggante benn at wala ñaari at sëñ Modou Mbenn taxawu na ko ndax 1955 si la si la si la fi jóge si la làq suñuy bët yàlla dogal bi mu làqoo 1955 taawam bii may wax di sëñ Cheikh di sama wajur euh, fekk mi ngi si ginnaaw Cheikh Góor ñuy liggéeyal sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom it daal di jël liggéey bi nag ànd ko nag ak sëñ Cheikh sëñ Cheikh Fall Baye Góor boobu njaarim lañ ko daa toggee kër Cheikh Ibrahima di ko di ko yóbbu kër gu mag boobu sëñ Cheikh Mbacké foofu la daa wore bu nu ko toggee ba saan ñu yenn ko tudd yàlla dem ba kër gu mag ñu yenn ko sëriñ bi séddale ko ñu dellu siwaat bu subaa nu xëyaat yàlla dogal ñoom ñu taxawul liggéey boobu ba 1978 78 sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké muy sëñ Cheikh Gaynde Fatma wàcc ab liggéey bi sëñ Cheikh Gaynde Fatma wàccee ab liggéey moom it la xewoon fële rek daal di xewaat fii ndax sëriñ Mbacké Madina da koo wóotu ci jataayub Cheikh Modou Moussa Mbacké seen baay sëriñ Mbàkke soxna loo wuutu ko nag si jataayu boppam si foofu nag la amee la la la ndoguy kër sëñ Modou Mbende yi nag foofu nag la nu beroo maanaam beru gii nu beru eh, nga xam ne tàmbali ndogu yi doon jëwriñ yi foofee la tàmbali ndax sëñ Cheikh Fall Baye góor dafa wéyal ay ndogoom ci sëriñ Mbàkke Madina nga xam ni moo fi nekk xalifab Cheikh Modou Moussa Mbàkke sëriñ Cheikh Modou Mbenda mi nga xam ne nag moo doon taawub sëñ Modou Mbenda moom nag daal di dikk nag wéyal ay ndogoom ci sëriñ Mbàkke soxna loo muy sëriñ Mouhamed Mbàkke nga xam ne 1979 si la sëñ moo Modou Mbenda njëkk a jot ndigal ci sëñ Mbacke Soxna Lo si togg ay ndogu ci turu kër sëñ Modou Mbenda Fall ñu tàmbalee ko di ko toggee Mbacke di ko indi fii Touba di ko teg si ay oto yàlla def na loolu sëñ Cheikh Modou Mbenda taxawu na ko ba 1984 Mbacke Mbacke Bawol 1984 sëñ Mbacke Soxna loo jox ko kër gii fii si Touba. ne ko dama bëgg nga randu si fi ndax liggéey bi gën a jàppandi sëriñ bi àndu si fii Touba togg na ko fi ñaari at moom sëñ moo Modou Mbenda euh, ba 1986 moom mu wàcc ab liggéey yàlla dogal sëriñ Talla Fall nga xam ne moo moo toppoon si moom di doomi sëñ Modou Mbenda wóotu ko doon xalifab sëñ Modou Mbenda sëñ Talla moomee nag sëriñ Mbacke Soxna Lo jox ko tey kër gi ñuy toggandagu tey ne ko moom it mu randu si fi ndax man fee def liggéey liggéey bi kon fii ñu ngi fi ñëw 1987 lañ njëkk a togge fii ay ndogu kër gi ngeen ñëw tey sëñ Talla Fall jiite ko ñun bis bu ñu demee ba 1996 sëñ Talla wàcc ab liggéey sëriñ Amdi Fall mii fi nekk tey nag ñuy ñaan yàlla ko fi yàlla yàggal te wéral ko moom it ko nag jël liggéey bi tàmbali ko nag di ko di ko liggéey moom it. Euh, boole ko ndigal yi jóge kër sëñ Touba yëpp di ñëw kër Cheikh Ibrahima Fall euh, liggéey boobu mm, fa ko sëñ Cheikh Fall bàyyi woon euh, sëñ Talla bàyyi ko fa. sëriñ bi moom bi mu ñëwee da koo yokk ndax kenn ku ne xam na ni yoonu kër sëriñ Tuubaa yi amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ñun xamuñu luy wàññi luy deltu ginnaaw luy yokk rek la am mooy liggéey bi mën nañ ni bi ko sëñ Cheikh Modou Mbène di liggéey booba fukki ndab ak ñaar la daa defar yoo xam ne ceeb la daa doon ceebu ndawal la daa doon waaye sëriñ Amdi bi mu ñëwee dafa wax ne dañu koy soppi moom ceeb dañuy seet ñam moo ñu jàpp ni rek tey jii wenn ñam gënu koo tedd ci euh, lu méngoog looy luy jógee kër Cheikh Ibra jëm kër sëñ tubaa sëñ bi ne nañu saytu lu mel noonu di ko yut kër sëñ Touba moo waral ñu soppi ko di ko def nii nu koy defee fii mu ne. li si toppit mooy ne na nu koy yokk at mu jot bu bu bu bu si misaal bu dee fanweeri bool bu déwénee dañ def ñeent fukk bu déwén jéegi dañ def juróom-benn fukk su ko defee loolu lépp jëm si euh, maanaam li nga xam ne loolu la liggéeyal sëriñ bi baaxoo. muy muy muy lépp loo def ren rek bu déwénee la ngay dana gàcceel loolee nga defoon daaw ngir ngir liggéey sëñ bi moo moo moo mel noonu euh, ni ñu ko defeet bu weer bi teroot sëriñ bi day ñëw Touba bu ñëwee njaboot bi yëpp ñëw doom yeeg rakk yeeg taalibe bi yëpp daje fi àndandoog moom bu ñu xëyee nii ngeen fekk nuy def rek noonu la ñuy def bu ñu xëyee kenn ku ne da ngay ñëw ci kanamu sëriñ bi indi si addiya euh, ñu ñu ñu dugal ko ci wana wi lépp lu ñu yittewoo lu jëm ci liggéey bi jàppandi na mi ngi ci wanag wi am na ñu ko sëriñ bi jox ñu yor ko dañuy dugg jël ko rek dikk defar li ñu war a defar fi mu ne na nga ni fekk na gàtt yi ñuy defar wala nag yi ñuy defar yëpp defar nañ ko ba noppi lu jëm ci li muy àndal rek ay sobleeki pomme de yi muy àndal yëpp jigéen ñi saytu nañ ko si anam yoo xam ne yu dëppoo ak ñu ko sëriñ bi bëggee la yu dëppoo ak sell gi ak ak ak ak ak mel gi mel na mu war a mel ñu ñu saytu ko euh, bu ñu jekkee ba si kanam tuuti rek danañ ko yàq su ko defee góor ñi daal koy defar yenn ko ñu tudd yàlla dem bu ñu eggee kër sëriñ ba jébbale ko ñu séddale ko ñu dellu siwaat bu subaa nu xëyaat nekkaat si loolu kon loolu mooy sunu wàll si si si liggéeyu koor gi nga xam ne euh, fépp fu ab Baay Faal nekk tey jii boo néew Tuubaa si liggéey bi sam xel a ngi fi ndax euh, liñ naan li nu fi indi bàyyi nu fi mooy sunu mooy ak jaamu yàlla te nun sunu jaamu yàlla mooy liggéeyal sëñ Tuubaa te liggéeyal sëñ Tuubaa nag Cheikh Rafal moo nu dimbali wan nu yoon wi nga xam ne noonu la ñuy liggéeyal sëriñ bi dañ wax ni fekkoon na fi xeeti jaamu yàlla yëpp waaye bi mu ñëwee moom li mu tànn loola rek mooy yoon wi mooy kennal sëñ tubaa ak ñaqal ko te yàlla rek tax loolu la fi Cheikh Rafal indi loolu nag moo fi am fi mu ne kër goo dugg moo fa nit ñi bëgg sëñ Tuubaa bëgg sëriñ bi mm, loolu bëgg moom ci ab xol lay ne waaye day feeñ ci ay cër ak jëmm li ci topp nga xam ne mënta ñàkk mooy ñaqal sëriñ bi ñaqal sëriñ bi te yàlla rek tax loolu Euh, njukkal la lu ñuy delloo sëñ tubaa sunu borom moo ko ko fayee ndax dafa am lu ko lu ko suñ borom jaraloon am lu ko rasulullahi jaraloon am lu ko doomi aadama yi jaraloon mu jël ak dundam yëpp mm, tay ko ngir euh, jaayante ko ak suñu borom ngir am mën a am martaba bu mu mën a dimbalee jaam ñi. ñoom ñoom bu nu xamoon loolu du am xam nga sëñ tubaa ñooñu dañ ko bi ñu koy yóbbu ñoom fitnaal ko lañ ci jublu woon. waaye xamuñu ne boobu sëñ Touba dafa jaayante woon ak boromam loolu yi mi ngi mel ne rek maanaam ñaan gu nangu ndax euh, ndax euh, dafa waxoon ndax suñ yan bi bi nu ko ko nataalee sëñ Abdoulaye moo ko nettali wax na ni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ñëw aku meloom ànd ak waa ahlu badrin nee na bi mu leen gisee ak bëggam yëpp nekk si mbool bokk si mbooloo moomee nee na Rasulullah xamal ko ne ñii mënoo see bokk ndax ñi dañoo tuuroon deret te tuur deret dafa jeex si lislaam li indi mooy indil la garaat yoo xam ne dafa bàyyi ko sunu borom bokk na si garaatu xut bu samaan sëñ Tuubaa ne ko bëgg nañ ci lool waaye nag sunu bëgg da koo jël ñun daal li nu bëgg mooy bokk si mbooloo mi bi nga xamante ne bi e, yonte bi tontu ko ne ko ñii de bari na ñu toll fii nga toll maanaam si yàlla ndax nit ñi mag ñi dañ daal lëggéel yàlla ba am fu nu toll ñu am lu ñu leen won muy ab cër bu ñu leen won ne leen nattu bii lii mooy tax ngeen jot si ñu ñu bëgg saa jot mu ne bari yaa na ñu toll fii nga toll ma feeñoo leen nii ma la feeñoo ñu bañ a tee bëgg dara lu lu lu lu am ko waaye lay tax ñu ñu am ko de bu ñu leen ko tegee des leen di mujj dimbali waaye kenn ku yanoogun yan bi ba àggale ko amagut si àdduna sëñ Tuubaa dafa tontu Rasulullaahi sallallaahu alayhi wa ne ko yan bi laa xamut lu muy doon ndax rooge moom sàkku ko bay xam lu mu attan ak lu mu attanu waaye ak lu ma mën a lu ma li ma mën a xam daal mooy ak lu nu ma mën a yen bu ko sama roogi attanee sama jom dékku na ko mooy mooy le pacte d' allégeance bi mu signee ak Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wax ko ne ko kon nag li nga ñaan nangul nañ la ko kon desul lu mooy Touba gi génn ko ndax gase nañ la ak sa noonu àddina maanaam jaayante gi nga jaayante da ngaa war a daje ak sa noonu àddina te diirub yaa ngi nekk Touba noon yi duñ la fi fekk suñ Touba yàgg na ko bin Touba arasahallahu yi waxul ni yàlla dina ko aar waxul ni yàlla aar na ko dana da waxul ni yàlla yàlla na ko yàlla aar yàlla aar na ko moo tax Rasulullah ne ko da nga génn Touba loolu mooy sababu weeru koor woowee ba mu jeexee rek sëñ tubaa génn dem Mbàkke bari gii nga xam ne fa la fa lañ fa lañ mën a jàpp ni fa la nattu yo tàmbalee nga xam ni kon ñoom daanaka ay waruwaay lañ woon ay moyens lañ woon yoo xam ne nii yu sëñ Touba yittewoo woon la ngir ñu yóbbu ko si nattu bi nattu bi bokkoon si maanaam Rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamal ko ne ko lii nga jaayante ak sa borom bis ni tey ne la leer ni noof laay dootoo ko am si àdduna dootoo lekk ba suur dootoo naan ba màndi dootoo nelaw dootoo amum nooflaay dootoo yëpp ban banneex te nattu bi fu mu bàyyi koo di ñëw na nga dox dajeek moom waaye waxtu woo ko dawee rek nee na contrat boobu contrat boobu rompre nañ ko kon loolu lu métti la te it yi ñu daa teg ku tedd ki da ko daa yëg ni nga xam ne tey jii buñ ma ko tegoon man noonu laa ko yëgee te sañul woon ne eh ndax wax nañ ni waxtu woo rëccoo waa mbaa nga mbaa nga sërxët rek su boobaa li nga digg sa borom dagg na kon mën ngaa dem defi leneen waaye sëñ Tuubaa si jom ja lim ne sama jom dikku na ko ak ak bëgg lu baax ga ak xam li mu bëgg ak li ko koy may tax ba diirub ñu yóbbu ko si àll bi di ko sonal di ko fitnaal natt bu nu ko teg tey jii rek buñ koy teg suba dana tax mu fàtte natt boobee li mu bëggoon li ko taxoon a jóg xamoon ko ak bëgg ko moo taxoon mu jaral ko loolee te booba ñoom ñi ko yóbbu xamuñu woon loolu xamuñu woon ni lii moom la sëñ Tuubaa bëgg ñoom dafa mel ne ay ay ay ay ndaw la ñu yabaloon ngir ngir ngir ngir ñu dikk eh, bokk si yan bi nga xam ne moom la suñu borom yan sëñ Tuubaa waaw loolu loolu kon bu nu ko xamoon bu nu xamoon ni fii lay mujj kon xaj na du nu ko def ndax la doon seen yéene ak seenu bëgg moo doon moo doon eh, fragiliser l'islam si si si Afrique ndax tubaab yi moom li leen fi indi woon kenn ku ne xam na ko waaw ñoom ñoom amuñu woon ay raisons religieuses ñoom politique moo leen ñoroon ak économie mais nit ki bala nga ko mën a moom jariñoo économiquement dangay fexe ba jariñoo am xelam da ngay fexe ba jariñoo gëm-gëmam loolu nag lañ buggoon fexe ba dindi les formes de croyance toutes les formes de croyance yi amoon si si si ñoom rawatina nag l'islam gi nga xam ne dafa dafa dafa tàmbali woon nag di dugg tey am doole ñu fexe ba effacer loolu pour dugal si ñoom beneen forme de croyance jàngal leen loo xam ne dafay méngoog ñoom li nu gëm ngir mën leen a pénétrer ngir mën a jariñoo li nu am loolu moo doon seen seen seen objectif euh, waaye nag loola euh, daje nañu koo xamante ni kii moom moom moom moom ba ñu dikkee bañ ko bañ ko gëmloo loolu wala ñu bëggloo wala ñu bëgg koo jaarale si yoon woowee moom da leen xamal ni man jenn yitte laa am yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam aw geneen bëgg. waaw Cheikh Ibrahima wax nañ ni ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax ni euh, ñaar fukki fan si weeru koor la ko sëñ Tuubaa nangul ak njébbalam booba nag fekk na wax nañ ni loolu fekk na ñëw na kër sëñ si taarix day doon lu gudd waaye si tënk rek bi mu ñëwee bi mu ñëwee ba dajeeg sëriñ bi euh, bi ko sëriñ bi laajee ndongoli luy say tànk dane ko man dama bëgg ku ma àggale si yàlla sunu borom wax nañ ni sëñ Tuubaa da koo tontu ne ko kooku nga tudde su ma xamoon fu mu ne dooma fekk fii Cheikh dellu tontu ko ne ko moo ne moom day dama toppi tànkam ba mu sofi yow te bu génneet ma génn topp si ndax man aw ma yitte luur si moom daal di say teg ne ko te man sax de kooku yi may wër ngir mu àggale ma si yàlla dama jàpp ne yow la bu ma ñëwoon jamono fekkuma luy xeetook moom lu dul ñu won ma ab bàmmeel ne ma fii lañ ko sóol nee na sama pas-pas àgg na si liggéey ba am ngërëm li ma soxla si bàmmeel boobee. Sëñ Tuubaa da koo tontu foofal ne ko yow de ndongole xanaa danoo bokk mbir ndax man mii de Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi may liggéeyal doyen na ma sëkk ma ñëw jamono ñu ni ma biddiw yii daana ko tiim muy asamaan si wala suuf si daana si dox ngir ma liggéeyal ko ba am li ma soxla daal koy daal koy nangul ak jaayanteem daal na ko waaye nag. fii kat bu fi yaakaar dara Cheikh Rafal ne ko soxla ma fi dara lépp lu ma am nan ma ko dencal ëllëg daal di laxasaayu nag daal di indi beneen forme de euh, soumission boo xamante ni bii xamuñu ko woon ndax euh, naka jëkk xam nañ ni ko sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa da doon jàngale alxuraan bi fi waajuram di nekk bi fi waajuram jógeet bi mu demee ab diir woote na ci lu jëm ci himma mooy mooy loolu ngeen di dégg ndax mu demee mbax ne rabbi asabaka bil himma wala turabihim bi darsh maanaam ku fi ku fi ku wut xam-xam indi woon wala ku fi jàng indi woon demal wuti ku la jàngal bis ñu tey nag ku bëgg a dem si yàlla nag na nga fi des loolu diggante bi mu koy wax ak bi Cheikh Rafal ñëwee si ay weer képp lay toll te Cheikh Rafal fekkewul jataay boobee kon nu Cheikh Rafal jóge rek mën a wër koo xamante ni kii dafa dafa ne am na kuy àggale si yàlla ak kooku muy àggale si yàlla nu Cheikh Rafal xamante ne mooy sëñ Touba doomi sëñ Mor Anta Sali ak nu mu xamee ni dégg maam nii la ñu war a liggéeyal sëñ tubaab ba am loolu loolu moo ñuy tegtal moo ñuy jox tegtal si ne ñoom ñaar fanu àndee du fii du si du si du di di jamono bii ñu nekk am na feneen fu nu àndee foo xamante ni fii euh, xam-xamu doomu adama aggu fa. ba mu sukkee bati woomam ya ne ko jébbal naa la sama bopp àddina ak àllaaxira da see teg ni ko loo ma digal dinaa ko def loo ma tere dinaa ko bàyyi. ba mu defee loola nag ba nga xamante ne bii wax moom wax nañ ne fu mu taxaw ab diir jëfa ak seegul ndax bu jëf ak dina dëggal wax ja mbaa mu weddi ko Cheikh Fall nag dafa jóg nag daal di jël jëfiinam ngir ngir dëggale ko wax jooju mu wax jox gi mu jox Sëñ Tuubaa boppam ne jébbal naa la sama bopp mooy li sëñ bi daan wax naa lu ku jaay lëf te yaakaar njëgg loolu génn na sa loxo moomatoo ko maanaam mu wane si jëmmam ak jëfam ni moom moomatul boppam ba gannaaw ba nga xamante ne bi jël na boppam jëbbal ko sëñ Tuubaa kon moomatul dara si jëmmam loolu doon na tax Cheikh Fall daa wax ni eh, li tax daawul yëg aw tàngoor aw naaj wala ab sedd wala déggu ko jam wala lu ko gaañ daaw ko yëg dafa wax ni moom jëmmam da koo joxoon sëñ tubaa ba noppi kon am te kuy yëg loolee sëñ tubaa mi mu jox jëmmam moo koy waaye moom amatul sens yi daal fonctionné si moom waaw euh, wax nit ku ku loo ma digal dinaa ko def loo ma tere dinaa ko bàyyi lu ko sëñ Touba mës a digal def na ko te mës a def lu ko sëñ Touba di tere kenn mësulaa nettali ci taarix lu sëñ Touba mës tere Cheikh Ibrahima Fall dañ lay wax kay lu mu ko digal mu def ko waaye Cheikh Ibrahima Fall mës a ko sëñ Touba di tere loolu mooy mooy mooy lii nga xamante ni moo fi am tey mooy yoon wi kër goo dugg dale kër sëñ Muntaxa ba buntu kër boo fi dugg tey modèlu Cheikh Ibrahima Fall boobu la ñëpp di dund moo am fépp moo tax ba ordre am ne bu du woon loolu anarchie mooy am kenn ku ne da ngay am fa nga toog jàpp ni eh, yow kat dara ja am walla waaye fii mu ne da ngay gis ni kër goo dugg eh, la fay dox mooy mooy mooy ndono loolu moo fay dox eh, seetu ñu ne sëriñ bi maa ko jàng seetu ñu ne sëñ bi maa ëpp xam-xam seetu ñu ne sëñ bi maa ko ëpp alal wala maa ko ëpp doole déedéet dafa am lu nuy seet mooy sëriñ bii kat mm, si ndonol sëñ Tuubaa la wala si ndonol gaa yu baax yi sëñ Tuubaa defar rek lo foofu rek la mbir mi nekk da ngay gis sëriñ bu toog taalibeem sukk fi suuf te bu dee xam-xam xañ na mu ëppale ko ko wala mu gën koo gudd am njàng gën ko koo yaatu waaye amul soxla si lu dul euh, sëriñ bi jox ko ndigal mu jëfe ko bu ñëwee mu ñaanal ko mu dem te xam ne si loolee la njariñam ne loolu mooy liggéey bi nga xam ne Cheikh Fall liggéeyal nañu ko te kër goo dugg tey loolaa fa am euh, addiye ji euh, ñu muri yi di joxe nga xam ne lépp lu taxaw si yoon wi addiye jee ko taxawal murid yee ko taxawal addiye jooju seere faala nu fàggul loolu am na kër yoo xam ne xamuñu ko te ay kër yi diine lañ am na kër yoo xam ne xamuñu ni waroon sëb sëriñ da ko war a nuyoo addiya dafa war di joxe ndigal ngay ñëw di joxe addiya dafa bokk si sart yi te loolu Cheikh Rafal si boppam moo nu ko jàngal ba tey jii kër goo dugg tey sëriñ bi lu mu joxoñ rek taalibe yi dajale seenu ñaq indi ko bu dee doole la laaj ñu dajale seen doole indi ko bu dee am xel la laaj ñu dajale ñu jëfandikoo seenum xel def la sëriñ bi bëgg loolu lañu Cheikh Rafal indil euh, muy un modèle boo xamante ne bi waxuma la yoonu murit la communauté murit mais au delà ñëpp dañ koy ñëpp dañ ciy dund dañ koy jariñoo hmm, peut-être sans le savoir waaye nit ñi dañ koy xam di ko jariñoo loolu modèle la boo xamante ni bii euh, njëbbaluk Cheikh Rafal googee moo nu si moo nu si dimbali muy dund gi ñuy dund nun ak taalibe premièrement mooy wayaf gi wayaf gi bëggante gi laabirante gi dimbalante si aw yiw ak lu baax yooyu yëpp ay ay ay ay vertu la ndax Cheikh Rafa wax ni ak taalibe da koo tënk si makarimal axlaax rek jikko yu tedd yi parce que bu ñu ne laa nit ab taalibe la rek li muy tekk mooy diw kooku dafa baax dafa tabe dafa yiw dafa jub dafa dafa laabiir ah, euh, nga xam ne jikko yu rafet yooyu yëpp dafa war a di daje si taalibe bi wala bu amee lu si desit war naa góorgóorlu ngir mottali ko waaye le model taali taalibe dëgg dëgg dëgg mu man doon day doon koo xamante ni kii dafay leer naññ ab xolam dafay laab dafay dafay dafay làmboog lépp loo xamante ne si mooy jikko yi rafet ndax loolu moom la ñu yàlla wàcce waale si kaw suuf kon leneen nu nu mel rek dafa noo dab euh, si si liggéeyub ñeneen waaye nag lii mooy idéal bi mooy mooy ñu nekk ay nit ñoo xam ne dañuy doon nit ñu mat sëkk ñoo xam ne dañuy dimbalante si aw yiw ak lu baax ndax lu sa moroom ñàkk rek fekk na yow am nga ko boo ko séddoog moom rek wala nga jox ko si tuuti mu am nga am donc yooyu yëpp suñu borom da koo réglé Euh, fi mu ne li ñuy wax pauvreté ñàkk geeg yooyu yëpp suñ borom da koo régler ñun nit ñi ñun ñoo tënkuwul si modèle boo xamante ni bii mën na regle àdduna bi waaw parce que bu nit amee fukk kenn kii amul benn kon kee bu jëlool ñett jox ko kee jël ñaar jox ko léegi kii dese cinq ñëpp mën nañoo tolloo loolu c'est le modèle loolu la yàlla bëgg loolu la yàlla bëgg moo tax euh, ñuy gën di war di gën di waxtaanee waat Cheikh Fall ak lim nu indil euh, te bañ a yem rek si si si li si kaw nii tey waxtaan waxtaan wu xóot ñu xam ni àdduna bi euh, musiba mënu nekk wala coono yu ñu nekk rek ñun ñun nit ñi ñoo ko teg sunu bopp. waaye bu nu góorgóorloo jéem a xeñtu li nu fi sëriñ bi faggul. lim nu fi indil buñ ci jéemee tënku rek ñëpp danañ mën a dund dund gu lewet te bu nu dundee dund gu lewet rek. sunu tey dana jag sunu ëllëg dana jag. loolu mooy rôle am coow si coow rek moo wërta am waaw ndax coow moom euh, maanaam li koy waral mooy xëccoo rek te kii xëccoo dafa bàyyiwul xel yàlla sunu borom ndax yàlla mooy séddale te yàlla fàttewul kenn nekkalu fi ma sàmba bàyyi ma demba wala mu nekkal fi ma dem ba bàyyi ma sàmm ndax kenn ku ne tey jii yàlla si si soobare sunu borom nga wàcce kon yàlla umpale wu la fàtte la Euh, li ñuy wax ni ku jàpp ni yàlla da laa fàtte dina la téye bis nuus foo xamante ni fii danga nga xam ni yàlla ku mu nga xam ni fàttewu la kon loolu mooy idéal bi mooy ñu am jàmm ñu dund dund gu goo xamante ni gii dund dund gu dund gu dund gu léeg sax nga gis ñu di ko nataal ci yenn yenn kii wane ni c'est possible lu war a mën a nekk la waaw yu war a mën a nekk la bu ñu jëlee yenn considération yi tekk na lee rek te yooyu dafa bokkul si yoonu lislaam ndax lislaam da koo da koo tënk sànni ko nële waaw moo moo mooy mooy soxorante geek bañante geek ñaanante geek ñàkk a yéenante ñàkk a dimbalante su baax yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne bokkul si bokkul si doomu aadama waxuma la waxuma la communauté musulmane wala murit déedéet même ñi nga xam ne bokkuñu diine sax danoo war a dund dund goo xamante ne bi kenn ku ne respecté sa morom ni nga respecté sa bopp nga respecté ko sa morom parce que ba jihaat xewee suñu borom dafa digle woon jihaat bi jihaat joojee jàllee suñu borom am na jeneen jihaat ju mu digle mooy jihaadu si jooju nag ba mu jàllee am na leen lu fi suñu borom teg mooy lii nga xam ne moo fi am tey mooy ñu topp si kilifa yi nga xam ne dañoo dañu leen a tànnal ñu yaakaar leen déglu seen ndigal xam ne tant que ñu ngi topp li nu li nu nekk li nuy digal tant que ñu ngi si tënku di si topp mm, du kenn du dab sa morom di ko fitnaal ñëpp dañuy am jàmm. ñun ñëpp dañuy dimbalante nga xam ne kenn ku ne da nga mën a dund dund goo xam ne bu dee jaamu yàlla gi euh, moom mooy sa yitte da nga mën a jaamu yàlla si jaamu yàlla gu tey ngir mën a yaakaar ëllëg mm, texe gi nga xam ne moom la ñun ñëpp di sàkku kenn ku ne moom nga sàkku moom nga yaakaar muy bu ëllëgee boo fi jógee rek nga mën a dem àjjana ndax àdduna moom lu nit gàtt gàttum xel xam ne kenn saxu fi waaw kenn saxu fi waaw kon nag euh, bis dina ñëw Euh, ñun ñëpp ñu dem te suñu borom wax na ko wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan wax na ni kenn ku ne wax nañ ni kenn ku ne di nga wéet ak sa borom ba yaakaar ne yow dong la sàkkoon si àddina ñun nag wéetaay woowee sëñ Tuubaa dong lañ fa yaakaar ak Cheikh Ibrahima Fall waaw ñoom la ñu jaayanteel àdduna ñoom la ñu jaayanteel alaxira waaw amuñu genn bëgg gudut xam ne ñoom ñi déggoog seen borom Cheikh Fall da ko waxoon sëñ Tuubaa ne ko féeteel ak yàlla yow mi ko xam man ma féeteel ak yow man mi la xam kon ñun loola doy nañu cëslaay doy nañu dëgërlaay kon nu góorgóorlu si taalibe gi nu sëriñ bi fàggul euh, te li mu laaj rek ñu def ko si ba bu ëllëgee lii nu yaakaar ñu mën see teg sunu sunu loxo. waaw ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm waaw waaw waaw waaw waar wi TV ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan yàlla sunu borom mu mu mu yokk seen martaba euh, li ngeen di liggéey yàlla na ko suñu borom barkeel. yàlla na suñu borom def mu dem ba doon euh, télé boo xamante ne bi mond bi yëpp dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy seetaan ndax euh, lii rek moom solo waa lii ngeen jóg di ko dabu si daal ñu ngi ñaan si màggu liggéey bi yàlla suñu borom defal leen tawféex barki maam Cheikh Ibrahima Fall barki Serigne Modou Fall Mbenda barki suñu Cheikh Fall Modou Mbenda yàlla nañ fi teewaat na ngeen déwén nit euh, defaat waxtaan mu xam naa dangeen ngeen maa bett nag wax dëgg yàlla waaye kon su ma xamoon ni sax waxtaan wi nii nii lay yaatoo sax. kon danañ ko abordé beneen beneen façon boo xam ne bii dinañ gën a euh, leeral yu bëree bëree bari yoo xam ne ñun suñu gis-gis la si yoon wi waaye nag xañ na yoon yemul ci benn wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ah, ba tey mbokk yi ñi nga xam ne saa su ne ñu topp ci Waarwi TV ñu ngi fii di ko sëñ Modou Mbenda nekk ci njabootu Cheikh ci ndogu yi ñu ñëw fi nag fekk suñu yaay mu nekk jëwriñ ci waañ wi yaay ñu nuyu la bu baax di la ziyaara la bala ak ci weeru tedd wi ñu nekk soxna Fatou Amar ñu fekk la fii ci ci ci waañ wi ci mu sëñ Modou Mbenda ci njaboot gi nga nekk ci jëwriñ ci waañ wi ah, taxawaayu ren ci koor gi ak nag ban naka ngeen koy defee ndogu yi ak jigéen ñi ban taxawaay leen ci am asibilahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim xanaa tàmbalee ko bisimilahi rahmaani rahim yëkkale ko alhamdulilahi rabbil alamin jigéen ñi moom seen takkuwaay ar bu ñee fukki weer yeeg ñaar la toog aar bu ñëwee fukki weer yeeg nañ ko ba ñëw ci waañ rek bàyyi tere koo ci seen ma nga takku dara jógu tax koo jóg lu bëgg kër gi jeex ginnaaw loolu nag nuy ñaanal suñu sëriñ bi di si am na mu di ñaan yàlla bàyyi ko fi dolli ko xéewal bàyyi fi koog njabootam ba lu mu bëgg gën a bëgg def ko ndax ndog yi ma ngi ko jëlee woon ci sëñ Cheikh Modou Mbend bu mu jógee ci sëñ Cheikh Mbend ah, ah, ah, sëñ Taala yor ko moom itam di jëf na seen soxna sëñ ta Mbend daan jëfi ànd koog soxna Soore Ndiaye sëñ Taala ba mu toogee boole noog soxna Jee Faal ñu ànd koog soxna Yacine Ndiaye ñoom ak soxna Jee di ko togg ak taalibe yu topp ci noonu lépp loo xam ne bëgg nañ ko mooy seen bëgg-bëgg ba sëñ am di ñëw di kër indi fi soxna Njaxate Dieng ak ko njabootam nu àndandoo ba nag ni jiite cin li ak soxna ak ngoom ñoom Mbène Ndiaye waa Njongeen ak mu neesu koo lim daal ndax euh, cin li moom mooy seen bëgg-bëgg mooy seen taxawaay yoonu Cheikh Ibra nag amul euh, tànk ginnaaw tànk kanam la ñoom seen bëgg-bëgg bëgg-bëgg mooy sëñ bi li mu ndax li tax ñu mën koo def ñoom dañ ni dan seen baay li seen baay wax moom la ñuy déglu lu mu leen def loo moom la ñuy def lu leen tere moom la ñu baax baayam it yëkkati ko jox ko sëñ Fallu sëñ Fallu yor ko sëñ Fallu itam lu mu ne ay rakam kenn du ci teg baat taalibe soxna yi topp ci ak i rakkam ak i doomam ak waa waañ soxlawuñu daal lu dul ah, nu kër gi jage rek kër gi nag moom lépp a ngi fi xar yaa ngi fi nag yaa ngi fi ginaar yaa ngi fi lépp a fi amul lu ñuy wuti lu ñuy wuti amuñu ko lu ñu lu mu doon na fekk nañ ko ci kër gi lu mu doon it yoonu Seex Ibra lañ bëgg soxlawuñu dara nag ndax bay Faal moom ndigal rek la soxla amul lu ñu bëgg amul lu ñuy bañ xanaa li sëñ bi bëgg lu sëñ bi bëgg rek noo nga jëf ba ba ngoon ndax euh, Baay Faal moom néew rek la war a doon ndax néew kenn xamul ku koy ku xamul ku ñuy yëkkati xamul ku ñuy diri foofu jëmee rek fa la jëm mooy nun ñii nag ak ak jigéen ñi ci kër gi ak soxna yi ak doomi sey ambi yi ak rakk yi dañoo booloo rek doon benn foo leen fekk amuñu xaajaloo moo tax seen taalib bu amuñu xaajaloo am nañu biyar am nañu teggin am nañu sutura lu mu doon dañ naa mbenn ga rek fu ñu dem noo fay man lu ñu wax loo fu ñu dem noo fay man fu jëf jotee la man dégluwuñu lu ndigal yoonu kër sëñ bi ak sëñ Touba rek lañ soxla waaw loolu daal moom lañ nekk ci waañ bi amul na kenn ni gis kër gi ni mu toll waaye benn baat képp seen benn baatu baay ak seen ak ki mu leen booleel amul ku seen aw fenn loolu moom la moo ma sa nekk te ba tey moo fi nekk yéen nag yéen waa rajo bi tam ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal jàmm yàlla na ngeen ko yàgg a def te yàgg fee ñëw noo ngi sant bu baax a baax sant nag ngi ma àndal ñëpp soxna yi seen i sëpp bi yëpp ak doomam yëpp ndax ñëpp jox nañ ma cër ndax moo waral li ñu yabal la tey kon nag maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal jàmm yàlla na nu dund ba wooraat ko ba di ko warewaat te kenn bañ a manqué barke maam Serigne Fall ak sëñ Amdi Fall mu du benn ak njabootam ak rakkam ak doomam ak soxnaam ak taalibe yi kër gi yëpp. yàlla na am lu ñu kawe seen lu kawe seen njort maa ngi sant ñëpp. jërëjëf yaay yàlla la fekk bu ne ngeen déwénee